i ló ti dá gbogbo lè. ọmọ ìlú ba tey ci seen scandale di jour vidéo Bougane bi nag wax na ko ci fan yéle mais nag dafa mel ni bi ñu ko rëkkalee ba léegi dañoo jël vidéo bi di ko partagé waat ci réseaux sociaux yi ndax nag xam ngeen ni seen scandale di jour nee nañ leen lépp lu gën a fës ci actualité moom lañ leen di indil donc vidéo Bougane bi ginaaw bi mu ko defee ci semaine yële ñu génn indiwaat nañ ko te nag jàpp nañ ni ñee naan li mu wax moo rëy ba tax yàlla seetaanu ko nañ dem si seetaan vidéo bi ñëwaat.

suma maam dafa génn àdduna alors merci merci non non non merci merci merci merci merci merci suma avoir une pensée pieuse à je, d'une personne exceptionnelle baax na baax na jo jo am jom je, ñoo ko déggandoo ñoo ko je, astafurlah ca yàlla nee na bu bu bu faloo boo doxee ba dajeeg Zeyna ne ko Zeyna ça va bien noo sant Guèye ban Guèye Guèye Dany naan la sallallahu alayhi wa sallam astafurlah maa gi loolu kenn rek la ko yàlla may muy yonent bi moom mi nga xamante ne ñun gisuñu ko xamuñu ko waaye fu ñu dëgg turam ne sallallahu alayhi wa moom rek lay moo ko yelloo moom rek la ko yàlla may amatul keneen. amatul keneen moom kese ngeen ci mbindéef moom mi tax yàlla sàkk suuf sàkk asamaan moom mi tax lépp lu ñuy gis àdduna ci jëmmam la yàlla seet may ñu ko moom rekk moo mérité ñu tudd ko muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala nga naan seydinaa muhammad ku toog fale ne la sallallahu alayhi wa sallam donte xamuñu ko gisuñu ko te waxoon na ko newoon na ay saxaabam yéen buggoo leen ma ñi ma bëgg a dëgg xamuñu ma te wut fu ñu dégg sama tourne sallallahu alayhi wa sallam donc buggaan yaakaar naa bu fekkoon comédie la c'est de très mauvais goût bii moom du lu rafet beneen bu ci topp waaye ñun bu ñu amee président boo xamante ne bu amee émotion jooy ñun fu ñu jëm Sénégal nga xam ne émotion chaque jour bu ñu amee koo xamante ne saa yu jàppee micro mbooloo bi taxaw mu jooy ñun fu ñu jëm dañoo soxla président bu dëgër président boo xamante ne du jooy Pape Djibril Fall boo ko waxee Fall nga sant mu jooy <laughs> Bougane géey mu ngi nii di jooy ñu koy jox mu soir mu ne buggul waaye ñii ñu bu ñu jiitee ñun fuñ jëm ñun dañoo bëgg président bu kii de buy ñàngal de léeg mu ree tuuti waaye lii ah déedéet génn leen ci li ngeen ne nag. bugaan jooy yi moom moom kilifa moomu ko looy jooy ci mbooloo kilifa kii nii tamit bugaan gi ñu lay nax ba pare nga naan merci merci di ñàkkal kersa ñi lay nax ah, arrêté waayi bugaan arrêté la waayi eh suñu ndijaay jooju nag hmm. waaw mais alaajiw sax jooy na waaye xam naa ni moom li nga jooy moom moo raw moom li mu jooy tëddi tëddi jooy nga daw love